légui ci kaw importance culture ak performance ak développement puisque ci loolu lañuy ñuy wat jël exemple ci yoonu murid exemple bo xamanteni ni nak ne nag na ay réew yuñ ko défendre ci aduna défendre nako Paris défendre nako Madagascar défendre nako ci pays yu bëri ci tek ko ci lo xamanteni kenn du ko ak ay preuves gis nga aduna

lolu di erreur bo xamanteni colonisation moko defonte djub defoon te ñu amoon ci jublu ñoom it seen stratégie beggu ñu won dul fexé ba ñew imposer suñu seen seen langue motax politique état yi war nañu jël seen responsabilité ñuy jàngale les langues nationales. malheureusement ñun dañu ne ci réew yo xamanteni ñu ñu diriger dañoo ragal population bi té nit boko ko la diversité ethnique yi n'est wax c'est pas ça le problème fi dans ce pays mais ñu yombal mais état rek ko mun réew mi wor nañu ni fi mais ku ne ni puisque ag nañ ci 45 même plus de 90 de la population sénégalaise fi dañu wax wolof lolu koy outil utiliser man nañu dimbali ndax France fofu la jaar France fofu la jaar kañ lañu commencé eh, def euh, le français une langue officielle yooyu nak dama koy bàyyeeg loxo politiciens pour wan leen ne développement deug deug du dañuy bàyyi lañu donné ne ci tuba bi ndax amna lu fa baax lool lu fa am njariñ lool waye nak liñu mom dañ koy indi té jaareel suñu développement ci suñu culture loolu alaaj Amadou euh, Mahtar Mbow wax na ci lu bari bari quand il était directeur général de l'UNESCO di wane ne amul benn peuple mëna développer bo xamanteni jaaro ci ñëw ci ci sa ada loolu Mamadou Dia en 1963 bind na ko ci ab téré di di ko di ko wane xëy na bu fekkente ni tubaab yi galankor ñuko puisque duma ni Senghor a ko gàllankoor tubaab yi ñoko galankor puisque fi ku fi bëgg def lu baax boo leen toppul boo amul fit lol ñu xoxutal la bañu jëlé la fi kon kon nañu japp ni nag deug dëgg feek ñoo ragal la jël suñu autonomie ak tout ce que cela comporte comme risque développement duñ koy dégg duñ fa dem mukk lolou la ma wo def il a pris ses responsabilités motax tay Chine même buñ ko waxul dañ ko bëggu tax puisque chinois yi dañ leena a discrétion

démon na ci guerre bi ba ñu ko ñaari bomb yo xamante fa lañ ko ni ah nu ñuy def lii bu ñu jógul ci suñu bopp àdduna tukki kenn xamul ni japonais ku a téye seen valeur amul nous. il suffit nga japonais te kenn gën leen modèle sori ci concept modernité tradition loolu mooy lan yow mu kan moo ñemee wax ni pla Platon moderne lool ba léegi xalaatam dañ ciy dund kan moo ñemee wax ni Cheikh Ahmed Bamba moderne lool kan moo mën a wax ni El Hadj Malick moderne lool kan moo wax ni profet yi moderne ñu woon qui peut le dire yooyu ay wax la rek mais nit ñi parfois

boo moo tax boo gisee muus sax guddi ni jinne laa gis puisque simplement dañ ñu formaté ci idéologie yoo xamante ni rational rationnelul alors que développement ci rationalité lay topp lay jaar ci la mag ñi jaaroon ñu dem ci Japon gis ngeen fi mu mujj dem xam-xamu tubaab yi mu jël ko jariñoo ko ba pare nag sukk nag laytaaye ko seeni xam-xam looloo tax fu ñu àgg ñoom ñu àgg fa beneen Inde

je crois que tant que conscient wuñ ci lool développement da ñu ko wax di ñu génn muy doon i mais du dem fenn développement taxaway la il ne peut pas y avoir de développement durable sans un ancrage culturel local c'est pas possible ñu dem ci benen ci lay mujje moy Iran ku ne xam na ni Iran ku leen gëna a ci seeni aada amul ci la ñu toog ferankulaayu ci mais teewul

nax nañoo naxa naxa naxa nax ba ku tubaab tubaab lu wul sax ñu def ñu ni kaw kaw baa nga mbaa xamut dara mais xam-xam ci mu col la ne ñun daal suñu xam-xam da ci ci ci sol lañ ko féetale sol ko sim def cravate di ngog ngog defa ni yaa ci nekk on est rien du tout et on ira nulle part faut pas qu'on se fasse des illusions bu ñu nax suñu bopp looloo fi kii mag ñi it loolu lañ fi indi woon bi ñu ñëwee li ñu def mooy xool li nit ñi kii na nga xool ci waxu sëñ Touba xam nga moom moo demoon ba di gis nga ni mu ñëwee ci culture wolof ci culture wolof te pourtant origine am du wolof mais ni Alaaji Maalik culture origine am du wolof mais loolu war nañoo yee ñun mais c'est de grands intellectuels moo taxoon ñu doon bind façon gu téere bu dee bind nañ ko téere kay borom xam-xam koy mooy bind loolu am waruñu ci am jàngat lan moo tax ñoom ñu choisiroon du bind mais dañoo bëggoon nit ñi jariñu ci

moo islamisation des wolof gaaw en moins d'un siècle en moins d'un siècle Allah Malick ak Serigne Touba te am nañu leen fi jiitu woon ñoo achevé islamisation des wolof en un temps très record mais puisque simplement dañoo xamoon ñi ñuy defal ñan lañu ñu jëflanteeg ñoom ca ñooñu la ñu xam moo tax ceddo yi ñëpp daw fax wuti leen mu jël transposé culture wolof la notion de parenté moo tax il faut nga questionner notion yooyu pour xam lan mooy fondement tarixa yooyu dëgg-dëgg originalité bi culture wolof mu de mu kii parenté wolof gi nga wolof dañuy di xeet woo xamante ni esprit de solidarité dafa yàgg ci ñoom ak li ñuy tudde ngor ak yu demee ni yooyu ak bëgg liggéey te ay baykat lañu woon moo tax sëñ bi bi mu ñëwee xool ni ñii lii lañu man par la main de Cheikh Ibra Fall par la voix de Cheikh Ibra Fall ñu instauré Cheikh Ibra Fall toll na fo xamante ni ci réew mi ndar laa la ni tolloon na jamono yo xamante ni kuy ma mara kuy culture tool tool yi def ci maraîchage ndar yëpp moo leen servir maraîchage mais yooyu la ñu a wax te loolu mi ngi ci archives yi ay commerce fu tubaab yi mës commerce commerce amna ko fa di concurrencer euh, blanc yi ba mujj tubaab yi dans les archives ñu tudde ko le ministre de l'économie et des finances du Mouride, buñ ko waxé mom lañu bari bëri nag dañoo maam Cheikh Anta lañuy wax déedéet ci walu activité commerciale maam Cheikh Anta jegewu ci won Cheikh Ibra Fall si jegewu ci won mo taxone d'ailleurs ñom ku ci ne ku ci a am problème Cheikh Ibra Fall ko réglé puisque tubaab bi dafa am lu ñu gëmoon nom, rek ci jamonoom moo demoon ba am am ñaari avocat yu kon xam nga kooku il est il nit ñi di nekk nii honnêtement moi comment pourquoi on falsifie l'histoire comme ça exemple yooyu la ñuy war a wone pour won ni développement dafa am yoon té gis nañu bo jamono yoyu démon na ba tous les ans tous les ans ci walu addiya dana jox au moins seigne Touba 50000 mille c'est des milliards

Si président le président de la république mi une nouvelle ville nous ñi ni parfois comprendre pourquoi on n'est pas ambitieux pourquoi on ne veut pas prendre notre destin en main ça c'est un problème

agriculture molen mayon lolo, activité économique bu wér ñu nek ci moo mayon pouvoir bobu loolu it motax kenn mënu ko dindi tay lat ñu ne ci walu mbay ku ne xamone nañ c'est les plus grands agriculteurs du monde seigne Cheikh Gaynde Fatma avant l'indépendance fekk nako muy def commerce ak le monde extérieur wa ñoñu ñoñu doy ñu exemple pour euh, pour euh, mon wonu ñu la voie du développement

dugal ken la ko téré pour jarñoko ko Chine foofu la jar ba am jamono ñu ñëpp xam ne ba ñuy produit bu ma sa jógee ci ñu chinois la wala sapone la waaye léegi ku jarul ci ñom do do def doo dem fenn lolu war nañ ci mëna a xel mais nak lolu aussi dafa am ño xamante lolu ci seen loxo lay né ce sont les politiques lolu dañ leen koy dello ñom ku ñu ku yilifé ku né da ngay woné li tax nga yilifé mais léegi-léeg comme ni ma wax rek dañoo xaw a sunu gouvernants yi dañoo xaw ragal ñu ñu gouverner dañu xaw ragal ñu ñu xaw ma lu ko waral nag. bu ko defee kon ñu ñëw ci ak yoonu murit ak développement te xëy na foofu la ñuy jeexale sax gis nga moo tax leader dafa baax gis nga développement murit li ko waral que dañoo am leader. ñeneen ñi am nañ ko mais comme lii moo ñu tax a jóg dañuy focaliser suñu waxtaan yépp ci loolu leader mooy mais leader kese doyul. que Sénégal gis nañ ko li fi ne ci leader kenn xamul nu ñuy toll waaye ana seen njariñ daanaka kenn gisuñu ko kenn gisu ko mais leader bi ñuy wax mooy leader charismatique ku am charisme koo xamee bu waxee ñëpp ni mu déglu ko waxtaan ba lay neex kii wax ñëpp nangu koo déglu jox ko nopp mais loolu dafa am lu koy maye personnalité benn personnalité booy booy incarné boo xam ni boo waxee sa wax day doon da am orra boo xam ni boo benn barke boo xam ni boo waxee dafay mel ni dafay mel ni fital dugg ci biir xol xolu nit ñi lu dugg ci xol des ci mais personnalité boobu boo ko amul loo wax mu jaar ci nopp nit ñi génn dem mbaa boog sax ñu fay jógee di ko critiquer ak di la saaga te loolu yaatu na ci Sénégal saaga kilifa ñaaw na te ci la ñuy xëy di ci gont defani noonu la léegi sax moo tax ñu bëri ragale def politique nag puisque gor bëggul ku ko saaga mais foog nañi ku bëgg a feeñ rek léegi doonal saagakat doonal ku ñàkki teggin léegi daal ñu teg la fuñ la war a teg waa am réew nag bu ko ci ay cuune jiite waxuma ni ñëpp cuune la de ñu baax a ngi fi waaye buñ dee favoriser cuude fu réew moomu jëm société boo xamante ni mën nañ ñu hésiter favoriser cuune fu boobu société jëm loolu jarul jang ba sa bop toj c'est des réalités qui sont là et que nous devons dépasser si toutefois nous voulons aller vers le développement développement dafa am ay tegg leader charismatique motax seigne sëñ nekone leader charismatique xamni ne lu mu wax rek ñu tok diko ko bu ko defee daana dem ba xamni ñi wolof lañu gëna dégg muy wax ak ñom tombam yi ñëpp xam nañ ko di wax ak ñom ci wolof ba dem ba naan sax xam nga kuy mbokam sax dañ koy wax mbok moy mbokam murit murit mooy mbokkam dem ba sax am na ay adage yu célèbre dans le mouridisme ñu ni murit yi dañoo war a doon ni sayu mat waaye loolu moom njëkku ko wax kat loolu yonantu moo ko njëkk wax ah l'image du mur ni musir julli ci war a def pour wan na ni ñoom dañ doon dañ daan dem sàkk ci lislaam indi waxe ko ci nit ñi nu ñu mën a déggee lolu motax mouride à travers le monde fumu fek morom mouritam jappé ko nu bopam puisque dafa da ngay da ngay am kilifa am dafa leader charismatique bu am taxaway bo waxé ñu déglu bu ko défé nak bo waxé ba paré am na ñoo xam nous taxaw fecc di exécuter lolu mo don place ñu melni ñom mam maam ñu bax ñoo ñu melni Cheikh ibrahim ñu taxawal ko deug deug deug deug wax ni mo bras droit am mais xamna ni amon na taxawaay bu wér ci walu économique ci ci ci ci yoonu murit demoon na ba sax touba bi nenañu xeyna bokkon na ci ñi gënon intelligent ci réew mi c'était la seule personnalité du pays bo xam ne bëggoon gis na gouverneur général il n'avait pas besoin de rendez-vous d'audience mais yoy nañ ko waxee nit ñi personne ñu seen personnalité nañ ko jàngale nit ñi bu ko défé ñun ñu tënku ci seen personnalité pour dem. dañ mën basirou ndax amé nañ ci mom digël ndax at mu jot bu ñuy def lu mel nii ki fi nekk Serigne Touba nañu wax ak yow ba tax nañu woote bis bi sant nañ ci suñu borom nag ndax mboolem kër yi diine ñëw nañu suñu dëkk yi ak bokk yi nga xam ne ñoo bokk góor gi ñoom ñëpp na ñëw nañu euh, surtout nag unité bennoo ndax lu waaye di def lu waay di jéem te bennoo la nga bëgg doo ko am dañuy wax ne sànq lañ bu booloo wat weer kon loolu la waral ñu woote bis bi bokk yëpp fekk ñu ci Eh, ñu am nañu ko def en direct eh, ngir diaspora bi yëpp seetaan ko eh, mboolem fu ab bi nekk mboolem fu jullit nekk mboolem fu sénégalais nekk ba ci yeneen nation yi ñu mën ko seetaan ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci fekk gi ñu ko fekkee ren te ñaan yàlla fekk ko déwén yu bari ñaan suñu borom ñi ci teew ñëpp bu déwén yàlla bu kenn manqué mm. yitte yëpp ñaan suñu borom subhanahu wa mu faj ko ci ndax ku ne xam ne réew mi jamono yii mu toll dafa toll ci jamono yi xat-xat ndax xëccoo yi bari na te yu ci bari dafay mel ni boo ko toppee ba ci biir euh, day dellu ci euh, lu personnel mais du dolli ci intérêt général. nañuy bàyyee xel nañu utal ñëpp te ñu utal kenn dañuy fex dañuy wax ni koo xamante ni boo amee defal ñëpp da ko ñëpp ñaanal koo xam ne la mu am nag ci boppam la ko yemale na ñaanal boppam. te amaana nit ñaanal boppam yàlla du ko nangu amaana waxat ka nag mën naa nekk mën naa bañ a nekk. kon loolu moo tax euh, daje yi ñu ñuy daje te tey dem koo tàmbalee wasiifa wasiifa ñu miine ko ci yoonu Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ab taalibi murit moo xam ne ab dongo murit woote daje bi te ni ubbee ko wasifa dafay mel ni ab junj la waaye damay jàpp ni bennoo bi rek war ñu war te yem ci ay wax war naa yem ci ay ay jëf man nag noonu la yàlla bindee damay jàpp ni lu wax rek damañ koy bëgg di jëfee ak ak ak ak jëfee ko ak ni mu gën rafete ba tax na tey ci njabootu Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ñëw nañ fi def ci wazifa jàng fi xol yëpp sedd kon loolu tax na it nag ndax bis bi ñàkk jekk dama ci daan ànd ak soxna Aminata ren it noonu la la ci ànd ak moom yàlla xam na ni mi ngi jaay xat-xat ak nekk ak njiitu réew mi président de la république woote nañu léegi en direct bokk nañ ko dégg mu yebal directrice de cabinet mi yebal loxol ni joram yabal délégation boo am solo mu ñëw nekk sama wet loolu day mel ni bu ko sama jigéen defee sama soppe sama xarit sama wëllëre day mel ni ab junj la junju nag mooy kóllëre dañ koy feddali te dëgëral ko kon daal ñu ngi ñaan suñu borom euh, réew mi ndax parrainage yi ñu nekk ñëpp war nañ cee wax nañ ko def ak responsabilité te bañ ko def ak xëccoo élection yi ñu jëmit nañ ko def ak responsabilité que le waaye nañu xam ni Euh, kenn pertu Sénégal rek gagné ku ginnaaw Sénégal a gagné nag ku nekk la nga koy def def ko ak responsabilité réew mi ko bokk bu ñu ko taalee taal suñu alali bopp bu ñu ko bokkee defar defar suñu alali bopp développement nag du dara loolu ay xol yu ànd te bokk liggéey bokk bokku jëmuwaay loolu dakay développement kon di sant ñëpp pouvoir comme opposition waaye di sant kilifa diine yëpp ndax yëg nañ niñ ñu jàppee ndax ñun amuñu sens intérêt ci diine ji amuñu ko ci réew mi amuñu ko ci bokk gi loolu it euh, ñu ngi sant suñu waajur yi nga xamante ni ñooñu meññ euh, yar ñu jaarale leen ci yoon ba ñu mën a am lii ndax ñaari nit lu mu am rek na ko gërëmee ay waajuram moo tax bis wii tey suñu xel yëpp day dem ci suñu waajur boo liggéey loon te ñu ci war a di rendu liggéey boo xamante ni eh, àdduna yëpp ñu ngi ciy jariñu ku yëg ak ku yëgul moo tax yu demee noonu leeral ko jaadu na wax ko jaadu na ba réew mépp mën koo xam di gërëm euh, média bi ñoom ñëpp ndax euh, sans exception ndax euh, ku lim juum waaye yëg nañ ñi lu ñu nekk rek dinañ ko àndante ak ñun. kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom yàlla yóbbuwoon ci bis bii. te lépp luñ ci ñaan suñu borom yàlla def ko. màggal gii ñuy waaj tamit ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim. Eh, yàlla defal ñu ci tawfiix ba lu ci borom digle rek ñu def ko waaye nag màggal gi moom ku ci bëgg am li borom digle mooy def ko ci jub mooy jàng alxuraan bernde jàng ay xasida seere gaa ñu baax ñi. Eh, jokkoo ak bokk loolu mooy jëmmi mooy ruuxu woote gi eh, ndax suñu woote eh, ñun naka jekk ci diine lañu feeñ jamono ci lañu màgg ci lañu yaru ci lañu ñaan yàlla faatu it nak nga rawatina nag ci kër Cheikhul Khadim la di daawandu ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mon ah. professeur on peut ko en français ma traduire leen ko rek leen ko rek ah, traduire leen ko rek